jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen daal jàppal ñu am mbégte di dellu di ànd ak yéen ci liggéey bi nga xam ne dooroon nañu ko tey juróom benn fan ginnaaw ajuma biñ ko dooree mooy ndigal di jógee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha al Khalifa wàcc ci Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbenda xalif général bu Baye Fall ma ànd ko mboolem njabootu maam ci seetal lépp waaye yàq di lépp loo xam ne rek nekkoon na di fatt wala foo xam ne nii rek la fa nekkoon waroon a dindi eh, ñu dindi ko muy liggéey bu am solo nag ñu toppal leen ko mu mel ni corniche bi ba léegi comme niñ ko doole woon eh, seetal nañu ko indi garab yi mu mel ni jaaraan nañu ñaareelu yoon bi ngir ñaareelu yoon bi ngir eh, dindi garab yi nga xam ne daanaka moo fi ëpp solo li ci des mooy li ci gën a bari loolu la waaye image yi ngeen di gis di kàmb yi nga xam ne mooy kàmb yi ndaamaatu ngeen ko xam ci ñu koy wax ngelambu muy kàmb yoo xam ne nag ay tool la woon tool yi dër waaye béréb la boo xam ne ñoom it ndox mi nga xam ne mooy ndoxum taw mi nga xam ne sonaloon na ndaamaatu te ñu bari yëgoon nañu ko nekkoon na di fa wàcc ñu ko fa doon yóbbu ngir mën a feexal béréb yi nga xam ne fa la nit ñi dëkke woon mu nekk loo xam ne nii nag bokk na ci programme bi nga xam ne njabootu bay fal war nañ ko defar ba mu méngoo ak ñi ko sëriñ bi bëggee mu mel ni ndox ma fa nekkoon bari na waaye camion yi nga xam ne ñooy mang mangoon nañu ca lu bëree bëri image yi ngeen koy gis nii waaye jeexital bi daal mooy dafa nekk béréb boo xam ne du rek ndoxu taw mi moo fay wàcc waaye li nga xam ne napp li nga xam ne yaatu na loolu si def bu bi dafa nekk muy ndox mo xamne da fay ball ci souf di gennat di ta lolu nak innovation mom lañ leen won ni waye comme bay fali sen programme modi corniche bi euh ñu war ko ñëkke bu ñu fa paré nak ci xibaar yi ñu jot rek moy war nañu dem fofu xol nu ñuy def ba mëna sekk fofu defaraat ko ba nga xamne rek ni ko sëñ bi bëggee dina mel nonu lolu nak amna ay souf yo xamne jot nañ ko fa andi diko sekk waye comme niñ ko mangal tamit waaye tamit ay pexe war na am ngir ñu mën ko def ba nga nga xam ne moo di ndox mi nga xam ne mooy bale ci suuf ñu mën koo téye ba euh, daal dootul mën a téye génn loolu nag liggéey la boo xam ne nii liggéey bu rëy la liggéey bu am solo la waaye nag euh, njabootu Baye Fall ni ma koy waxee rek xam nu Baye Fall nekk ñu ñoo xam ne nii dara mën naa rëy seen bët wala rëy seen karam ndax pas-pas bi ak dogu bi waaye xam-xam bi ak xalaat yu yaatu yi nga xam ne macha allah xam nañu ko ci lépp loo xam ne nañ koy dugub kon loolu mooy loo xam ne nii daal xam naa ne jàppal nañu leen ko tey ci euh, àllarba ji di benn fan ci weeru mars ñu fas yéene rek kon euh, toppal leen noonu rek image yi te beneen yoon kon timis di leen jaajëfal di ñaan ngeen abonné ci suñu seen jërë ngeen jëf